ñu dóor gars yi ñu daan lan nga takk. non man man sama gars yi ñooy ñëw ni ma na ma takkal man du ma xam sax fu muy jógee. wër na yàlla du ma xam sax fu muy jógee man gars yi ñooy ñëw takkal ma rek na ma demal bëri ji nii nii man damay toog rek entraînement rek ma sax fu muy jógee ban bën nga soxla. waaw instant tool moom man mbëri nekk si kanam yëpp fi nii comme man damaa jóge tolof tolof nii man Ousa 2 laa gën a bëgg sama sama combat fi mu toll ak moom nii. moom laa gën a booy boobu dafa diis booy. boobu dafa defaruwaat de yéen seen combat c'est un non événement yi ñaar booy boobu la mën ba mën ka ka xaaral ma wax waxu jëf jël bi. kooku ka mën ka ka mën kala man moo ko man kooku bëriwul lay démonstré wu nii xam lu ko tubaab bi di waxee xam nga démonstré wu lañ koy xaw ma. day day def démonstration waaw kooku bëriwul loolu du bëree. kooku suñu doon bëree tey jii bu arbitre bi dama koy xaaj wàccee ko dóor gu mu daan wala ma jaab ko daan ko. ah waaw dama kaa dama kaa war a mën a daan rapidement du yàgg sax dama kaa bëgg. Ousa 2 wala 4. Ousa 2. waaw euh, su lay topp numéro 2. waaw ñoom ñaar commencé am damay bëree ak yow te doo te doo xeex. yaa ko wax fii de barke mun naa takk sam benn loxo. Ah. bëri ñoom benn loxo kese. yow loolu lépp ma fàtt ne que bokk na ci mbër yi nga xamante ne ni ñoo gën a mën a jafe wutal combat parce que promoteurs yi dañ koy doxal combat mbër yi di ko daw parce que dafa am ñaari combat yoo xam ne daf ko tegle ku mu dóor nga daanu léegi dafa am yeneen invité yoo xam ne ñu ngi ci plateau bi te damaa bëgg dem ñu léegi Santa woo nañu Les 2 wuyuwul woo nañu Abdou Diouf wuyuwul léegi yow waxal lu la neex après nga tàggoo man loolu rek laa lay wax. non du ma wax lu ma neex parce que aussi ay adversaire lañ. damay fi làkki tubaab de. dama leen di respecté rek. Euh, woo ne war nañ leen jotuñu leen mais ñàkkale bu ñu leen jotu dañ neen jot suba. waaw promoteurs yi ñu ngi fi bul sonn. donc damay profité ci occasion bi rek pour remercier la yow sa bopp ci invitation bi suma xarit nga. Euh, remercier aussi suma mag Bombardier hmm. di ko ñaanal yàlla bés bi mu jëm si digganteem ak Tafatine. Tafatine nee na da lay nga daanu. si digganteem ak Tafatine yàlla na ko si yàlla may ki nga xam ne aussi mooy suma frère suma rak di assurance moom it euh, yàlla def na moment yi mu ngi def ay performance yu rafet yàlla na yàlla def loolu continuer ba li nga xam ne tey jii yaakaar nañ ko ci moom ci wàllu làmb mu moto loolu yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def euh, di ñaanal mbëru Sénégal yëpp aussi ñoom ñëpp jàmm ak salaam mhm. ku ci nekk la baax ca yow yàlla na ko yàlla yokk mhm. la nga xam ne dafa nekk ci yow loo xam ne naka su dul noonu la yàlla na ko yàlla dindi Eh, di nuyu aussi euh, suma fans club bi nekk Wakaam yëpp. Mhm. di nuyu Adja Ndiaye ak tout la famille Ndiaye bi nga xam ne ñoo nekk Wakaam. Mhm. ak waa Yoof yëpp. Mhm. di leen dellu aussi di feddali sama kóllëre ak ñoom parce que dama koy wax chaque jour. man awma lu fedd euh, lu ëpp yoof. bu ma demee ba tey jii ma ah, takk dem bu ma demee ba takk ngemb ba tey. di bëre yoof a tax te loolu je pense que ne ci laay des ba keroog may bàyyi bëre donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di la sant di ñaanal yàlla Youssou Ndour mm. nomination bi nga xam ne moom lañ ko nommé. Mm. yàlla na ko jik mm. confiance bi ñu am ci moom. yàlla na motali lépp parce que bu talee loolu sénégalais yi ñoo ko motali Abdou Diounga santaan ñi nga maa ngi lay gërëm di la sant mais toogal damaa bëgg nga gunge ma bëgg jox Ndiassé mu tàggo Ndiassé looy tàggo waaw man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sam waa ko waa ay di sant sin waa dëkk waa Ciki waa Mbayar waa Diass waaw di sant sama gars yi ñoom Alioune Badara di sama boy fan si club yi ñoom ñoom ñoom ñoom sama tërëndoo xam nga di sant boo yëpp daal ay ñoom Jibi Ndiaye ñoom Abdou Ndiaye di sant ñoom Gànn Kumba surtout maa waa Kër Laabe wër na yàlla day metti ñu bari selbe non billaahi sama sama la wër na yàlla ko bokku la sax lu ñuy job ni sama mère dafa maa dafa maa bëgg quoi dafa maa bëgg ba Sidi Jaxate la fin bi mënoroom tëggal combat terrain bi moom moo ko dox pour Sidi Jaxate tëggal ma ma am war naa non damaa war a am combat dañ ma war a jox combat terrain si waa kër dañoo loué barki alxuraanu kër damaa war a am kër tawax billaay wa te damaa ñeme a di sant waa kër lawbe yëpp hmm. surtout maa ñoom gaay gànn kumba bu baax la day metti ñu bëri reculer maire bi jàpp ma comme voilà léegi jërëjëf Ndiasse numéro 2 yàlla na nga am combat ci jàmm hmm. nga ñëwaat plateau ñu waxtaan euh, santaan ñi ngi jërëjëf santaan li ngay tàggoo mooy hmm. dama bëgg nga wax jinne yi rek ñu yóbbu la Louga ndax foofu euh, Luc Nicolaï moo fa doon tëgg euh, cliff bi Euh, mu nekk euh, Diourbel maa ngi jéggalu bu baax a baax waa Louga maa ngi leen di nuyu Gaston moo tax may fàttali leen loo noonu Louga mm. Diourbel neel jinne yi ñu yóbbu la Diourbel waa jinne yi yóbbu la ñu jurbel ndax jël jurbel euh, démb neexu na trop li def na fa lu rëy mm. sama doomu ndey assurance aussi toj na ko kon yóbbu la ñu Diourbel ak Bathie Seras ndeysaan ñi doomi réew mi doom Bawol ñoom nag ñoom ñooy ñoom ñooy li ñaan ba réew bi rido combat la Bathie Seras ak góor daan na eh, daan na ko pogal ci yel góor daan na Bathie Seras ah jël ba na jël ba rëy na ay bi jël ndeysaan bamba ngay léemu ñu ngi sex ak fas ñi ngi léewtoo bëre la ñoom ñaar sànq kii di góor moo daan bàcc seras moom ah Abdou ko Abdou Abdou Diouf daan na Bamba Faye arbitre bi jeex waay moo waa Abdou waay Bamba combat jeex na dëgg-dëgg mbër bu la daanee ka gën a jànn xel rek xamal ne na xam ne moo daanu Abdou daan na la Bamba Abdou daan na la waaw waaw daan na la jël bu rëy